ak fu ngeen mën nekk ci kaw suuf man seen mbokkum taalibe seen mbokkum jullit Mbaye Dramé maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ñaanal di sàkku seen ñaan ñaan suñu boroom defal ñu koor guñ nangu nangu suñuy naafila nangu suñuy ñaan rëcc rëcc yëpp jéggal ñu ko soppil ñu ko yiw def ko ci suñu balance yiw ya yal na yéex fa tabaarakallaahu maa ngi nuyu ñëpp boo boo commencé ci Isxaq si nga xam ne moo njiitu groupe bi ba ci ki mujj dugg mel ni ki mujj dugg yaa njëkk a dugg group bi dafa yore jikko yi dina islaam dina islaam ci tuub tey ak ki ci am téeméeraat ñu yem ci yàlla ku gën a ragal yàlla rek yaa gën jege yàlla groupe bi noonu la mel ku gën a taxaw rek ku gën taxaw rek ku gën jegal rek ku gën defar rek noonu la ko Isxaq si sosee noonu la ko sosee. noonu la ko sosee am nañu fi nekkoon bu yàgg am ñu ñëw bu yàggul te ñi ñu mujj ñëw ñoo gën a siiw Isaaq noonu la sosee groupe bi yàlla na ko sax yàggee yàlla yokk te saxal ko te yàggal ko ñu ngi nii ñëpp di bala àq ñëpp di bala àq ñëpp di ñaan yàlla bu doon suñu mujj koor ñu fas yéene ñëw incha allah ci eh, naafila fukki guddi gi ak juróom-ñett naafila gi nii la. ne nañu ku ci jàng fukki rakka fukki rakka rakk bu na jàng fàtte benn yoon def sa bismi rabbikal a'la bu mu jeex benn yoon def qul bu mu jeex benn yoon def qul huwallaahu ahad bu mu jeex benn yoon mooy naafila ak fukkeelu guddi juróom-ñett te mooy guddi tey gi ci njëkkoon woor ni ko waxee léegi dinañ ko def lii mel nga ni koo xam ne am nga àdduna li ci biram yépp yëpp yëpp nga jox ko ci yoonu yàlla nga def ko ci yoonu yàlla te ku def lii ñetti saar yi ma la wax muy sabbihi isma ak qul yaa kaafiruuna ak ixlaas benn xaraf bu nekk am nga ca njëndi ca àjjana mooy dëkk bu mag benn xaraf bu nekk am nga ca dëkk bu mag ci àjjana benn xaraf bu ne ku def naa fa léegi ci am nga ci yoon comme ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki xat te suñu borom nangu ko jaamu ko guddi ya xoor bëccëg ya suñu borom nangu ko am nga ci yoon ku mel ni comme ku jàng alquran téeméeri yoon wàcce kaamel téeméeri yoon dégg bindal ci yool comme tiyaa booy xaaroo na mag yonent yàlla Moussa yonent la te du gis du génn ci aljuna ak ci aljana euh, du génn ci àdduna ndara mu gis palaasam ci aljana balaa génn fii ci àdduna dana ne jàkk palaasam ci aljana ku def naafile gii ci guddi kër juróom-ñett bi te buy dekki day ànd ak nit yàlla yi nga xam ne yomal xaam ñu tiit bu ñëpp ci te ñoom duñu tiit mukk kon nag yéen yàlla defal ñu ko kon naafile gaa ngi noonu seen mbokkum julit dinañ koy jox bor bu set mu leen di nuyu di leen siyaara di leen jégglu nag waxtu ngeen gisee ne am na lu jaarul yoon jubbanti leen ko bu jaar yoon ñaan leen borom bi nangu ko loolu rek moo ci nekk nangu rek am solo yéen yàlla nangul ñu yéen yàlla nangul ñu yéen yàlla nangul ñu bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa